الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء ونشفى شفاء لما في الصدور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله العظيم فالخطبة في التقوى فضلها ومعانيها وأبوابها وثمارها وعاقبة أهلها mbokk yi ginnaaw bu sant yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu wàcceel alquran karim leeral ci lépp loo xamante ni mënu doomu aadama soxla ci dundam mu it moom alquran luy saafara bépp jàngoroy xol ñu ngi seet ni yàlla moom am kenn koy wax jàmm ci dëkk dul moom te ñeeru ñu koy bokkaale kenn di seeru si sang Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaamam la ndawam la tànneefam la xaritam la yàlla ñu ci yàlla xeer moom ak i saxaaba ak képp ku topp ci jubam di rafetal boobu bis penc di taxaw mbokk yi ñu dénk suñu bopp di leen dénk dara yàlla subhanahu wa taala suñu xutba yi tey ñu ngi koy fas yéene amal ci lii di ragal yàlla ay ngëneelam ak ay aspect ak it fa mu war a yóbbu doomu aadama bi ci ay gënal ay jeexitalam ak bu tëntal bi nga xamante ne mooy kilal yàlla mbokk yi ak taqwa li ragal yàlla hiya wasiyatu llahi li hadihi l umma wa wasiyatuhu li ahli lkitaabi qablaha mooy li yàlla dénkaane woon ci xeet yi ñu wàcce woon téere ak ñoom wàcce woon ci ñoom téere mooy dénkaan it bi ñuy dégg ñu xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa laqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mu ni maa ngi dénkoon laaye biire woon ci ñi nga xamante ne wàcce woon naa ci ñoom téere ak ñeneen ñu dul ñoom la ma leen dénkoon mooy an ittaqullah mooy ñu ragal yàlla mbokk yi dafay doy sëkk rek ci jullit bi mu xirtal ci ragal yàlla ngir mu doon ci ñu yàlla di bëgg ndax yàlla mu ngi wax ci alquran mu ni inna allaha yuhibbul muttaqin man yàlla de damaa bëgg ñi nga xamante ni ñu ragal yàlla gaa yi ragal yàlla nag ñoom seen dund ci kaw suuf ñoom dañuy dund bu nufuusin mutmainna mooy bakkan tey la ñuy dund ci kaw suuf bi ñoom benn fitna àdduna wa sudurin munshariha seen dënn it seen xol amul genn njëkk-njëkk bu ciy nekk koo xamante ni luy feebar loo xol bi la ci iñaan ak ci rëy wala leen loo xam ne ni feebar xol la te it dañuy am sécurité ci dund gi ñuy dund ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ni waalamu anna allaha maa almuttaqin mu ni xam leen ni man yàlla ma ngi ànd ak ñi nga xamante ni mooy ñi ragal yàlla yàlla nag bu ànd ak jaam boo xamante ne dafa am maayatullah ci yonent yi bu ñu jëlee misaalu yonent yàlla Musa alayhi salaam moom keroog ba mu jàkkaarloog noonu bon boobu di Firawna mu ni tey jii de bu fi kenn fanaan ci Moussa ku bëggam nañu rey ñëpp Moussa ànd ak gaayam yi daw ba ñu ñëwee ba jàkkaarloo géej gi ba amatul fenn fu nu jaar ndax sës na dëkk ci géej gi Moussa geesu moo ñu àndaloon gis Firawna mu ngi jaar ak armée bi mu àndal ngir ñëw faat Moussa bi mu àndal keroog ñu àndal ak Moussa dañ ne kalla lu ñu wax ñu ni inna la mudrakuun dinañ ñu dab de Firawna nii di ñëw tey kenn du fi des ñëpp lay faat waaye Moussa wu ni leen kalla inna maaya rabbi sa yahdin mu ni mukk yàlla mi ngi ànd ak man te insha allahu taala yàlla dinañu génne ci jàqar gi ñu nekk te yàlla joxoon na ko arme boo xamante ni mooy yat wa ba mu ko dóoree ci géej bi géej ga xar mu jàll Moussa jàll ak ñoom àndal Firawna lab ak ñoom àndaloon loolu la ko mayoon Moussa mooy dafa àndoon ak yàlla maayatullah boo delluwaatee ba tey ci ci yonent yi alayhim salaam nuux ba muy defar gaal bi dañ ne woon ci dox na ndax dëkk boo xamante ni ab joor da ko fi nekk gisul fenn géej di defar gaal wante ba gaal ga noppee ba yàlla jox ndigal asamaan mu wàccee ndox jox ndigal suuf mu ball ndox mu amoon keroog xam nañ lan moo taxoon mu doon defar gaal wante ànd ak loolu lépp ndox mi doon wàcc ci kaw asamaan amul benn topp ndox bu wàcc ci biir gaal gi ngir gaal gi mën a jéng wala mu daal ndax yàlla mooy gaal googu de tajri bi a'yunina man maa ko doon surveiller ndax ñoom dañoo àndoon ak man kon yàlla bi nga xamante ni moo sobe woon yonent yàlla Muusa soo sobe yonent yàlla Nuux ak ñeneen ñu dul ñooñ ñoo ñu fekkoon tamit suñu mag ñi fii ci Sénégal buñ ci jëlee misaal a Cheikh Ahmadul Khadim Mbacke ba ko tubaab bi jëlee ni dañ koy yóbbu sànke ko xasida la leen bindal asiru maa al abraari xiina asiru wa danna al ida anni hunaka asiru dañ ko xasida ba jeex xam ne moom de sànq gi koy sànq di àndul ak kenn wetul ak kenn ku dul borom tamasaku bil xaqli al matin muwaxidan wa bil urwati usqa allati hiya nuur nee na fenn dong la mooyaa woon mooyaandu woon mooy ci alquranul karim bi nga xamante ni borom subhanahu wa taala ci la wax lépp mu doyloo yàlla keroog fexe yi nga xamante ne noonu fexew nañ ko ci moom benn am ci kon maayatullah ki koy am mooy ki nga xamante ne dafa ragal yàlla ànd ak yàlla yàlla ngi waxaat ci alquran ni ala inna awliya allah ñi nga xamante ne ay nitu yàlla lañ laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu la leen di xaar sax ci barsax ak qiyaamu saa la fa nekk ci lu raglu lépp ñoom amuñu luñ ciy tiit te it lañ nar a bàyyi ginnaaw ci njaboot ak lépp luñ nar a bàyyi ginnaaw amul lenn luñ ciy tiit yàlla mu ne alladina amanu ñu ko am nag mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla wa kaanu yattaquun nekkoon ñoo xam ne ñu ragal yàlla lañ ñooñu yàlla mu ne lahumul bushra fil xayaati dunya dinaa leen bégal fii ci àdduna soxla suñu am mu xaj duñu jàq duñu jaaxle wa fil axirati ci àdduna tamit alaxira bu ñëwee danaa leen fekk ay xéewal yoo xamante ni mosuñu ko dund ci kaw suuf yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ni ñooñu nga xamante ñooy almuttaquun mu ngi leen di waajale janna aljanna joo xamante ni lay daw ci suufam mooy ay dex yàlla moo tax mu ni wasaariu njëkkante leen njëkkante leen waxul ci alal de njëkkante leen waxul ci lenn ni àdduna li mu wax ñu njëkkante ko mooy ila magfiratin min rabbikum ci njëggalu seen borom wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin mu ni jàll aljana ji ma leen di waajalal mooy ñu ragal yàlla aljana jooju de yaatuwaayam nga toll asamaan ak suuf yàlla mu ni waajalu ma ko kenn nag ku dul ñi nga xamante ni mooy ñu ragal yàlla yàlla ci yàlla boole am yàlla muy waxaat ba tey ci yawmal qiyaamati ak la fay raglu lool ak nit ñi ni ñuy dawante yawma yafirru l-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma sha'nun yughnihi moo ko tax mu ni keroog la kenn ku nekk di daw sa morom waaye yàlla mu ni al axillaa ñi xaritoo woon ñi bokkoo woon te yàlla tax yawma idin baaduhum li baadin adu ñi xaritoo woon te yàlla taxul woon xaritoo ngir intérêt àdduna bu intérêt ba jeexee xarit ba jeex ñu intérêt woon ci lenn ci poñetu àdduna bu loolu jeexee xaritoo ba day jeex waaye xaritoo mbokkoo ci pas-pas bu wér ci yàlla yàlla mu ne ñooñu de ëllëg ñoom ñoo ñi nga xamante ni du ñu jaaxle du ñu nekk ay noonoo du ñu dawante seen biir alaxillahu yowma idin baaduhum li baad aduw illa almuttaqin boobu def ñi nga xamante ni mooy ñu ragal yàlla mbokk yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba tey mi ngi wax ci alquran mu ne yaa ayuha annaas ay yéen nit ñi inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li tacaarafu inna akramakum inda allahi atqakum yàlla mu ni ay yéen nit ñi man yàlla maa ngi leen di bind bind def ñii ñu nekk ay góor def ñii ñu nekk ay jigéen ma def leen mu nekk ngeen nekk ay génération yu bokkul génération yu bokkul ak it ay xeet yu bokkul wante nattuma ci ki gën ci yéen ci alal nattuma ci ki gën ci yéen génération sàngam bi génération quatre-vingt moo jeune génération quatre-vingt-un nattuma ci loolu ci seeni génération nattuma tamit ni xeetu sàngam bii ñoo gën xeetu sàngam bee man fi may nattee man yàlla mooy inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla wér na tamit ci ni yonente bi alayhi salatu wasalaam ba mu demee ci xutbatul widaa ci xajjatul widaa ci xutbatul widaa ajam boobu nga xamante ne moom la mujjee aj ci xutbaam boobu nga xamante ni comme ci noppee xutbaa bi beneen xutba bu ko gën a jotale sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu waroon wax keroog la ko matale ba mu waxee daf ni leen yaa ayuha nnaas ay ngeen nit ñi ala inna rabbakum waahid xam leen ni de benn borom ngeen am mooy yàlla wa inna abaakum waahid te yéen a bokk fenn fa ngeen sosoo mooy ci aadama alayhi salaam ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغ mu ni amul kenn kuy gën ci yéen koo xamante ni dañ naan kii arab la moo gën ku dul arab wala ku dul arab ni gën ni moo gën kii arab wala koo xamante ni dafa xees ñu ne kii de ku xees la moo gën ku ñuul kii wala ku ñuul kii moo gën ko xees kii mu ne déedéet gënalante gi nekkul foofu mu ni kii gën ci yéen mooy ki nga xamante ne mooy gën a ragal yàlla ba mu daaneele ay kàddoom daf leen abal laxtu mu ne ndax sama kàddu bi dégg ngeen ko ndax li ma wax mat na ndax jotal naa wallahi qad ballaga risaala wa adda al amaana wa nasal umma wa jahada fillahi xaqa jihaadi xatta ataahu al yaqin sallallahu alayhi wa sallam أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وقينا من سنتات يا الله سبحانه وتعالى di jullu di selmal ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ñu xamal ni ñi nga xamante ñoo ñuy gañ ëllëg mooy ñu ragal yàlla yàlla ci yàlla boole yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana ngeen xam leen ni de bu ngeen ragalee yàlla bu ngeen ma ragalee dinaa leen teqaleel ba ngeen xàmmee ràññetle li nga xamante ni mooy li dagan ak li nga xamante ni mooy li xaraam yàlla mu ni nag képp koo xamante ni sa insaaniya yóbbu na la ba ngay def lenn loo xamante ni yàlla da ciy topp ci ay bàkkaar ragal yàlla bokk na ci liy tax yàlla defaasal la say bàkkaar yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa aminu bi rasulihi yudif leen min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi mu waxaat ni wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'aatihi wa yu'zim lahu ajra yàlla mu ne képp koo xamante ne ragal nga yàlla man yàlla dinaa la faral say bakkaar effacé la lépp loo xam ne defoon nga ko ci bàkkaar te dinaa la dencal réserver la ak payoor nga xamante ni payoor bu màgg la te mooy ëllëg mu dugal ñu àjjana yàlla ka defal ki nga xamante ni mooy ki ragal yàlla ba tey yàlla mu ngi wax ci alquran ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib nakate kat ki ragal yàlla kooku yàlla day tijji buntu wërsëgam ndax yàlla mu ni képp ku ragal yàlla yàlla dina la defal ay maxraj maxraj mooy saay boo amee soxla mu faj saay boo nekk ci njàqare yàlla utal la benn bisu heure kooku ki ngay am mooy ki ragal yàlla te yàlla mu ni su mu koy wërsëgalee min xaytu laa yaxtasib laa koy wërsëgalee fu mu ko bu foogee day jékki saay rek benn xéewal bett ko boo xamante ni la ko ci waxtu lenn du delloo la yàlla muy sant ko yàlla mu ngi waxaat ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra ki nga xamante ni ku ragal yàlla lépp lu muy lijjanti rek du am lu dëgër lu ci am yàlla ak yombal la ci am da ciy def ak jàppandal mbokk yi lii di ragal yàlla nag nit ki faw yi mu xam ni mooy tax mu am lii di ragal yàlla ba ci njëkk mooy bi fi'li taa'at wal qurbat wal ibadat ibadat al qalbi wa ibadat al lisan wa ibadat al jawarih mooy ponk bi ci njëkk mooy nit ki faw mu dem ba settantal boppam ci ndax mi ngi topp li nga xamante ne mooy li yàlla farataal ci moom mu koy def muy xeetu jaamu yàlla yi góorgóorlu gi mu ciy nekk di góorgóorlu muy settantal dina natt xolam fi nga xamante ne kenn egg fa ku dul moom ndax balil insaanu ala nafsihi basira ndax moom doomu aadama bi ak rëy mu ngi ci moom ndax man kiñaan mi ngi ci man ndax man ak mbañeel mi ngi ci man yooyu noonu muy natt di ko settantal ci xolam mu xool ko ba xam ni ah moom de falillahi alhamdu jàpp na ni xolam bii de jàppul ci kenn ki ñaan xolam bii de ak rëy nekku ci ku nangu la ak yeneen ak yeneen kooku de mën na jàpp na ni ragal yàlla mu ngi ci moom ñaareel bi mooy ci ay cëram ndax moom mu ngi génne ci làmmiñam ay wax yu sofaan ay waxi mboosoor waxi caaxaan ay saaga ay xas ay rambaaje ak xéem na xeeti ñaawteef yoo xamante ne mu koy génn ci ci làmmiñam ndax moom it ay cëram tàggat na ko ba mënul xëy suba ba ngoon jot ubbiwul alquraanu karim bi jàkkaalu ca bëtam yi ko yàlla jox mu jàng ci ay safaxaat lam ca mën ay noppam ndax tey jii déglu naa ci alquraanu karim ndax mënuma kaa jàng waaye man tey déglu ndax tey dem naa ci borom xam-xam mu dolli ma benn masala boo xamante ni ndax may dolli ci la ma jëm ci sama yoon mu may leeral li may def ndax lii di diini islam kenn du ko làmbat ndax man fexe naa ba dégg ba dégguma sama nopp yi lenn lu ma nit indil di yàq deru keneen ba ma ne ko ah man de bëgguma ñuy wax ci keneen loo xamante ni ak ayib la ndax loolu jëw lay nekk li ngay ra muraaxawee say cër ba ci say tànk ndax man tey jii dox naa ay jéego dem ci jàkka juróomi waxtu yi ñaata waxtu laa ci def tey dox dem ca jàkka ja tey jii bi ma déggee ni diw dafa feebar ndax jóge naa séq ay jéego dem seeti ji ko ndax àq la bu dox sama diggante ak moom ndax tey bi ma tàggee diw ma amoon jot ndax laxasaayu woon naa dem fexe ba fekk ji rob ba ngir mën a gunge ko ñaanal ko amaale ci ay tuyaaba yii nii nit ki dafa war di fuglu di ko bàyyi xel ngir lii di attaqwallah di jëmbatu ci moom wa thaniyan ñaareel bi mooy ijtinaabi dunubi wa sayyi'aat fexe ba bàyyi lépp loo xamante ni ay ñaaw téef la ba da nga doon fexe di góorgóorlu di def ay yaamu yàlla ci sa xol say cër mais fii nag mooy fexe ba bàyyi sori lépp loo xamante ni ñaaw téef la yu sa bët bii di mën a def ci xool yoo xamante ni yu xaraam la ci di déglu yoo xamante ni yu xaraam la alquran ak musique mënu la bokk dëkkandoo ci biir xol yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na al imaanu lii di gëm yàlla yaziidu wa yanqus dafay yokk waaye dafay wàññeeku yaziidu bi taaat day yokk ci góorgóorlu ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla wa yanqus bil maasi dafay wàññeeku nag ci mooy ngay mooy yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nag bu sa xol bi demee ba feebar bokk na ci lim koy nammaatee ba mu delluwaat ca fitrat allahi allati fatara annaasa alayha ca na ko yàlla sàkkee woon ci ak njub ci sell bokk na ci ngay déglu alquran di ko jàng contraire am nag mooy nga jël musique di ko déglu musique noonu lay fayee say lampi xol kon outil yii la yàlla jox outil yii la yàlla jox muy sa dégg sa gis sa kay jawaare jaam bi nga ciy jaamu yàlla mooy tax nga am taqwallah waaye mooy bi nga ciy mooy di sori lépp loo xamante ne lu yàlla tere la ci ngay amee taqwallah waykatu arab bi dafa wax mu ni xallit dunub saxiraha wa kabiraha fa huwa tuqaa wasna kamaashin fawqa ardi shawki yaxduru ma yara la taxqiranna saxiratan inna aljibala min alxasan mu ni bàyyil soril moytandikul bépp bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu ndaw nee na nanga ko sori ak bu mag ba it mu ne loolu ci nga amee ragal yàlla mu ne na nga mel ni koy dox ci àll boo xamante ne daa am xaaxaam ay dëkk yuy jame nee na booy dox ni ngay bàyyee xel yey lore yàlla yi mën a jam ci xam xaaxaam yaag la la mën a gaañ ca ca yoon bi ni nga koy moytandikoo nee na na nga moytandikoo noonu ci say dox ci li nga xamante ne moo lay tàbbale ci bàkkaar mu ni ndax xanaa xamoo ni bul xeeb mu ni bul xeeb mukk bàkkaar bu ndaw ndax bàkkaar bu ndaw moo lay jural di bàkkaar bu mag ndax lii di montagne nee na ay xeeru ndaw la woon yu dajaloo mu jëndal montagne kon mbokk yi lii di ragal yàlla rek mooy li yàlla waxoon ci koor gi nii yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam ay yéen gaay yi gëm farataal naa ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu woon benn objectif donc la woon nag laallakum tattaqun ngir ngeen am ragal yàlla gii ñu doon wax léegi te yóbbal gii di ragal yàlla ci jamono yi ñu toll nga xamante ñu ngi waaj a beneen jaamu yàlla muy aj yóbbal ga moom mooy attaqwa muy ragal yàlla kon ragal yàlla muy yóbbal nga xamante ne jaam bi da koy soxla ci bu teewee buy tukki ak fu mu mën a nekk ak fu mu mën a nekkal yàlla yàlla defal ñu nekk dëgg dëgg jullit mu jëmbat suñu xel yi nga xam si mooy ragal yàlla rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله